Yeah.

échec bi nak di ah, Pierre Goudiaby pas sans que mu tudd turu journaliste bi lenn rek la de dafa utiliser ben fleur jaarle ko ci tontom jëmale ko ci benn vidéo bi nga xamante ni daf ko tourné ci kanamu li nga xamante ni mooy siège UNESCO ci référence au patrimoine bi nga xamante ni daf ko annoncé muy initiative boo xamante d'un dañ ko dénommé Amor ginnaaw loolu nag muy ami du monument de la Renaissance muy ben objectif boo xamante ni tey daf ko pour ñu sauvegarder lépp loo xamante ni daal dafa précieux fii ci Sénégal ginnaaw bu mu xamle lii di environnement bi nga xamante mon Worldly des monuments de la renaissance dafa doon li nga xamante ni tey mën nañ ci sukkandiku jaar na ko daal tey lu bien commun la tey donc dafa doon loo xamante ni lu inacceptable la ay nit yoo xamante ni amuñu foi mën a dafa xalaat jëmale ko daal ci imposer li nga xamante ni mooy seen loi parce que dañu am ay moyens financiers jëmale ko daal ci li nga xamante ni daal mooy provenance yoo xamante ni yu douteuse la ginnaaw bi nga xamante ni dafa créer li nga xamante ni moom lañ tuddee amour pour l'amour jëmale ko daal ci parti ginnaaw daal muy tontu bi nga xamante ni kii di Pierre Goudiaby Atepa delloo na ko kii di Madiambal Diagne Yeah.